présenté ci combat bi nga xamante ni ñu ànd ceekan Siri Jaxate ndeysaan muy combat boo xamante ni combat bu doy waar la diggante euh, booy gendar numéro 2 ak ki nga mooy guy bu muraay muy ñaari xale yoo xam ne yaakaar naa ne ñoom ñaar lu bot ca ginnaaw dafa bari ba léegi ñu ngi ci journée le 19 bi nee naan la Siri Jaxate ñëw na arène nationale yaakaar bii mooy premier ci arène nationale mu indi fi galaa boo xamante ne nii doy na waar ndax Tyson 2 dina fi laale ak ki nga xamante ne nii mooy caatu yoof ndigal war fekk laale ki xam ne mooy kaw gourné muy combat boo xamante ni nii journée boo xam ne journée bu doy waar la gen gendar numéro 2 ngi nii sama droite guy gi bu mu raaya sama droite ba gendar loolu dugal ci guy gi bii waaw ah, waatu damay nuyu waa maa ngi ñëpp ñu fi teew ñëpp sama père Sir Diakhaté sama ménagère Pambay damay ñëw sama yoon làmb ba pare maanaam gannaaw yàlla ak yoon su ma demee ba yegg si fii nii si làmb sama ménagère génn sama ménagère génn si lu bari mooy père Pambay wax dëgg ne yàlla daf may taxaw xam nga nu mu waree itamit maa ngi aw ma dara ki euh, sama staff nag ay Masek sama niyaay Ibrahima Gueye euh, Abdou Karim sama pap Mbéchar taw ñoom tam gis naa nin ma taxawoo gis naa nin ma taxawoo bu baax a baax a baax tamit xam nga ama mbër mu ndaw yor ko itamit neexul dafa métti parce que da ngay jël sa alal di koy yàq si moom wax dëgg ne yàlla da ngay jël sa alal di koy yàq si moom béy bu ñëwee itam ñoom ñooy jël engagement yëpp xam yow du sa dara du si dugg yow leen rek nga si am say entraînement bëri bilaay ñoom ma leen di kontaanee tamit di leen jaajëfal bu baax mm. ni leen nag nu pare ndax dañoo bëgg ñu nga xamante ne nii moo ànd ak nga xam leen nu pare laa <laughs> non xam sax wax dëgg ne yàlla ma amu problème boobu ko ma jéem ma xam di wax dëgg ne xam nga xam nga kii auzu billah bismillah ina waale yàlla gannaaw ma sant yàlla julli ci yonent bi sant sama ñaari waajur di sant suñu waa ekkee sorti sama Fatick fi ma jógee ñoo ma indi ba fii nii waaw li mu wax rek laa koy tontu moom bëgguma xam bëgguma ko xam hmm. comprendre nga la ma ci moom li ma dugal ci moom moom xam na li ma dugal ci moom moom xam naa li ma dugal ci hmm. moo ñu boole hmm. na mais bu ñu ba pare nañ xam ku nekk li dugal sama morom waaw xam nga loolu dugal ci moom waaye mais pour du ñëw rek jour sa ñëw jàpp ko daan ko rek loolu rek moom dugal ci moom waaw jàpp ko daan ko rek xooli keneen waaw incha allah dégg nga li mu wax kii booy gendar bu tàng bi la moom du leble te képp ku mos a leble ku nekk di nga fay la xam na ko combat bi nag du yomb ndax combat bi kuñ ko tuddee la Kéba Kàtte lañ ko tuddee cinquante boog cinquante lañ tuddee kee euh, làmb ji yaakaar naa ni sot seeg def si la nag waaw. waaw dara sama adversaire moom tamit di nga xamal ne que am na nga combat am nga combat bu baax. am na client bu mu dul yekkale barki yàlla. am na client bu mu dul bu tàng bi la. billaay du leble. seen diggante tuuti ngeen bi warut a mën a yomb. non non non non lii di yomb tamit bu foogee ne dina yomb itam mi ngi nax boppam. Hmm. xam ne ki muy bëree xale la te mën na bëre bu dee fit waxatuñ ko. Hmm. te itam mën na géew. Hmm. te itam day mobiliser taxi lu rëy. day mobiliser maanaam mbooloo mu bari te dem loolu père doy na ma seede Bercy Diakhate bii di première tëgg man ma demee ba déggoo ma demee ba defar licence laa ñeme lu metti am déet waaw ma demee ba defar sama licence pour bëre laa ñeme lu metti du moom moomay ñeme lu metti waaw si boobu loo koy wax mu ngi yi jaare gi ma koy wax xam na ko moom wax na ko joursa moom man ak man bu joursa na dëggal boppam rek mbër sa non wàllu dëggal sa bopp maanaam kenn du ko xool booy kenn du xool booy gendar numéro deux nangaar jour waa na nga dëggal sa bopp te bu bëree day neex bu xeexee day neex te bu ñëwee itam toujours neex xam nga gars yi di ko bëggee macha allah mais dama kaa xamal nag jour combat bi maay def lépp loolu leeram te dafay daan force. Euh. man si dara. loolu ay waxam la. non day daan ñi ko ñi ko wax ñi ko wax ñëw bàyyi am na fu mu jugee quoi. mais adversaire yi nga doon bëree ak kii am na différence. kii sama combat mujj bi man ak booy séeréer booy séeréer du morom ñi. Hmm. wallaahi du morom ñi. moo lay ëpp taxawaay moo leen man moo lay ëpp doole moo leen ñeme ngaa samp jaaga sa diggante kii barke borom barke borom daaru kii bu eh. taxawee bagaar ak man mu raam ci suuf boo taxawee bagaar ak man nga raam ci suuf ay mbokk digalu nu naa samay mbokk dëggoo ma la kër ku fa nekk tapet paa bi la kër ga pour mu leer ku fa nekk tapet ñu génne la kër ga jigéen ñi sax dañuy bëre nga ama pareel xam ne da lay génne combat bi kenn duma génne yow la ñuy génne xamal la moom nar a ci yow mooy ñibbi day metti quoi fii bon Baay nga ciy toog di o oh, loolu moom nar a ci yow quoi waaye toogal la am déet waa kañ yow mënoo dirigé voilà billaahi maay dirigé lépp te sañul bañ man xaw ma aneer ana waanu dem rek. waaw loolu na yaay dirigé te bañ. loolu neex na sañul bañ par la force. parce que Serigne Bamba loolu neex na. bu dee mooy dirigé loolu neex na. non man du ma xaar mbër sama moroom góor yàlla ma koy xaar. non man du ma xaar. non non non non man du ma xaar mbër. man du yow mosuloo. jour ba jour ba. ima jëlee image. combat bi mooy dàq sax gannaaw combat bi. bu taxawee dëggal boppam si kaw mu taxaw dëggal boppam ma xam naa maa ko man xëy na am na Lamine di wax nii nii nii rek mais jour bu ñu tëjee barrière bi billaay mu xam kuy booy gendar numéro deux xam naa xamagu ma nag mais su boobaa dina xam kuy booy gendar numéro deux su ma ne yow dama nga xam ma man dama lijjantiwu xam la sax man lijjantiwu xam la dama nga toog du man ak yow billaahi xëy na nag lamb nag boole nañu nii nii nii mais sama yoonu lamb bàyyil xel ni bokkoo si kon bo eh, léegi kon rek la le 19 lay xew léegi woteel waaw le 19 man maa ngi woo waa Mburaay di woo waa Kër Massar di woo waa Diourbel ñëpp ñëpp ñëpp di woo waa Sambe waa combat bi seen combat la di woo waa Kër Massar man doomu Kër Massar daanaka la fala fala defee sama lépp daanaka waa di woowa waa Arrêt Sale di woo waa sorti sama Fatick nag bu baax a baax di ñaanal sama doomu ndey jéen yàlla ko yàlla may ndam waa di woo nag euh, suñ prési euh, suñ président euh, kii ASC bi maa ngi ciy woo di woon ñi nga xam ne sax ñu ngi may jàppale ñëpp ñëpp mu limee damay juum képp koo xam ne mu ngi jàppale guy gi xam nga di doon ñaan guy gi am combat guy am na combat na ñëpp ñëw jàpp xam nga tee ko incha allah non mais bés bee tax may du yow quoi man bésu combat bi moo tax may wax ne mais du moom quoi. waaw ah, léegi yow ah, wooteel. waaw avant tout damay ñëwaat rek xam nga. non bul ñëwaat wooteel rek ba le 19. non <laughs> des na si parce que. waaw damay woo waa Ndar yëpp. waa ngay ngay waa Gendar waa ma jugee foofu damay ñëw ndat Mboora nag maa ngi woo waa Mboora ñëpp si da euh, kër Adumaari kër ajoor ga sama mbokku pëli ñëpp maa ngi leen di woo di bis si bis bi nii après nag si loolu weesoo damay ñëw sama wasila Cheikh Sarif daa ay dara waa kat Cheikh na Cheikh Sadou ñëpp maa leen di nuyu maa leen nuyu di leen siyaar wax dëgg na yàlla am nanu taxawaay itam si man bu baax a baax a baax maa leen di kontaane bu baax sama yaay itam maa ngi koy sant di ko gërëm ak sama pap billaay am nañ sam si man taxawaay bu rëy te xam naa jour bi nii mooy gën a yomb sax sama jour yi fi loolu leer na ma wallaay jërëjëf mbokk yi le di nuyu sama sama ménagère Père Djili Wade maa ngi koy ziar bu baax di ko nuyu waa di standard nag Kéba Kanté Kéba Kanté ñu ngi lay woo ci combat bi ñun waa doomu Kër Massar ñu ngi la ci woo bu baax a baax a baax waa waa Sottisan Fatick ñu ngi lay woo jërë ngeen jëf mbokk yi loolu le 19 lay xew woote nga ba pare nag le 19 lay xew ñu ànd ci ki nga xam mooy Sidi Diakhaté pro de famille drapeau bi wax nañ ko drapeau Kéba Kanté Cheikh Kanté ma naan Kéba Kanté sama man Kéba yóbbu na sama fit wi Kéba dama sonal ma xalaa Kéba ma sonal